demleen nag te seet lu wax joojuy tekki ndaxte ñëwuma ngir woo ñu jub waaye bàkkaarkat yi lay woo ginnaaw loolu taalibe yax yi ñëw ci Yeesu ne ko lu tax nuy woor nun ak farisiyen yi te say taalibe duñu woor Yeesu tontu leen ndax gan yi ñëw ci ceet dinañu naqarlu dara li fekk boroom ceet gaa ngi ànd ak ñoom waaye bés yaa ngi ñëw